Samaga TV mbokk internet yi ñu ngi fii Fila ba léegi fii ci esplanade ñu ngi nag ci bergerie boo xam ne xam naa ne ñi ma taxaw ñoo ma expliqué fii mooy fan grand jardin la waaw maa lay delloo ziar bu baax euh, sama xarit Cissé Dia borom Samagal TV waa ngi lay nuyu bu baax di la ziare tey euh, ñu ngi fii ci Fila tey ma gis nga accompagne beneen bergerie ñu xam ne yow yaay DG DKR waaye nga yaatal ànd ak beneen bergerie bergerie mooy ban waaw euh, Cissé Dia man ku ma xam-xam ñoom ci bergerie Khadim Rasoul mhm. mais tey dañu ñëw accompagner suñu xarit suñu frère monsieur Almami Sow mhm. nekk si Yoff cité Biagi bergerie Diaguissa que bergerie bu baisse, bi première exposition ci foire première édition bu Fila bi mu participer ñu accompagner ko Euh, pour gën mu gën a nekk si yoon daal fu mu dem mu yàgg fu mu jëm ci jàmm daal voilà. mais Béykat Diakita dama ñëw mais dama gis tey ay sujets yu extraordinaire nan lañ defee seen sélection ak naka la demee noonu. waaw boo gisee bergerie Diakita monsieur yi moom dafa nekk éleveur nit koo xamante ni ñu dugg pour dëkkam dafa ñëw ci bergerie xool si ñoo xamante ni ñoo gën a extraordinaire sélectionné leen. indi leen ci këram rien que rek pour mën si travailler dem jëli maal bu ñuy wax euh, tawfeex nga xam te ne tawfeex doomu Kocc la Kocc nekk doomu Roi Bassir te Roi Bassir actuellement booy xool ci élevage mun naa ne su doon euh, ci mode dañ naan moo gën a nekk à la mode actuellement bu dem très bien léegi nag mu dem jëli tawfeex boobu pour euh, liggéey ci tawfeex moo waral lu mel nii daal voilà mën nga ñu dégg ci kañ la ci dugg ak kañ ngeen xamante bon mun naa bu ma ko xamee léegi ça léegi un mais dama ko fekk muy def élevage boo xamante ne bu bu moyen la daal donc di liggéey ak euh, raar euh, race ndaama bi bon ma jaax utal ko ñaari sujet si sama ay xarit ñu jox ko ñu démarré bon ñu dem fiir muy évoluer muy gën di bëgg di gën a am ambition bi ba yàlla def benn jour mu ñëw ne ma non mbay dama bëgg euh, utaat ma ne loolu mën na nekk léegi da ngay bàyyi ñu def tour si bergerie yi ma ànd ak moom def tour si bergerie yu bëri am man bergerie ñun boo ñëwee xool boo xam ne ñun dañuy yaatal bu ñu ñëwee proposé wu nga sax li ñu yor ñu dama ko ne dañuy dem ñu wër si bergerie yi nga xool soo demee di nga gis ci loolu lañ def ba gis lu mu bëgg yëpp mu sélectionné ak indi ko gërëm. Mm. Euh, la toll ak ak waaw actuellement vraiment mi ngi liggéey. mi ngi liggéey te xam nga éleveurs yi bu ñu gisee lu baax dañuy apprécier. depuis boobu ñëpp ñu ngi apprécier xar yi mu yore. am na sax ñu koy proposer pour mu jaay. mais man maa ko ne non moom xalaatu ko sax. mu toll nii dafa toog pour liggéey. kon a teg ci tànk ah, mu toog moo liggéey ba ci kanam. avec le temps fii ak un an deux ans dinañ gis ay produits yoo xam te ni pur jagisa a ngi doog a ñu ngi door mu ngi door génn foar ñu ngi door génn foar mais xamna ni ni ma ko gisee nii yoon bu mu teggu ni ak euh, ñi mu nekkal di liggéey moy la ñoom bari ak ñom Ibrahima vraiment ñu nekk ñu sawar ño xamante ñi ngi top do xari surtout ci walu qualité xari ñi ñu ñu sété voilà vraiment ñi ngi ci liggéey bu baax leen ñu leen xon nañ do bu baax yow di ngeen ñew kër ga su ko défé voilà mais la mooy Jakisa est xam nga ko bo Jakisa nak sen village sa laaj na ko lam moy Jakisa mais nee na moy sen village wa guiné la mom du sénégalais mais wa guiné la wa defna ben param ba kenn ki guiné la nekk kenn Sénégal mais moom guinéen la daal d'origine Jakissa mooy seen village moom tur village bi lay jël nag da ko bergerie bi léegi laadum bi léegi ay Burkina man gis naa ay Burkina ba yoo xamante ne ñu ngi may contacter yoo xam ne ñu ngi jar foofu ay laaduma man sama gaati bi chaque fu ne moom kay macha allah yal na si war nañ ñu Sénégal non bu baax fonk li ñuy xanaa waaw bu baax incha allah kii mooy bari ziar naa la. maa ngi lay delloo ziar. dégg nga olof baax mbaa. non dégg ma olof. looloo dégg. man pël laa dégg. waaw waaw mais góorgóorlu. incha allah mais noo gisee euh, laadum Sénégal laadum Sénégal macha allah nag allah laadum yi rafet nañu. Mm-hmm. macha allah waaw. ok yéen Mali en général loolu la ñu daan yar loolu la ñu daan jënd yar yan genre Mali. Euh, fii Guinée Guinée. non man xaw wax dëgg yàlla kay xaw ma Guinée de. yoo fan man Kolda a ah, Kolda. Kolda yow Sénégal ah Sénégal man nag kii nga. mais léegi état bi nan ngay xarit kër gi. maa géré kay la géré bi doyee maa mbett yow nga yaa ah, ngi ciy koy do ñu ngi koy soog a dugg quoi ci laadum yi nii. Mhm. mais amoon nañu yeneen yeneen laadum. mais du su du du laadum nii quoi. mais macha allah. mais exemple xar bu doon am doom wala affaire yooyu kan ma la koy toppatoo. man maa koy toppatoo. mën nga ko waaw mën ko toppatoo. Oh. waaw waaw am na ay xar yu bëri yoo xam ne ba ñuy wàccee sa kanam la nga judd ñu juddoo amuñu benn problème. waaw lu amul benn problème. macha allah macha allah. amul ah. lu amul problème waaw. Ah. côté sànq bi loolu loolu kay amul benn problème ci côté liggéey xar bi kay. loolu amul benn problème maîtrise nga ko. waaw maîtrise naa la. yaa ngi doog a ñëw foire. waaw loo bi. kay macha allah. Mhm. foire bi kay maa gisoo soog a dugg foire. Mhm. xaw ma yeneen foire yi mais bii nii kay macha allah. ok waaw loo koy wax moom mooy tudd mais sama patron ma sama patron bi maa ngi koy remercier bu baax a baax man maa ngi koy remercier di la di ko féliciter euh, du en fait que euh, du question ay wallu xar yi kese. moom man nu mu ko gisee nii kay. Uh-huh. du question wàllu xar yi kese. Uh-huh. moom dafa bëgg a eh, ku muy àndal. Uh-huh. man musu ma waaw. musu mu musul musu ma ma yab moom musu ma yab quoi. waaw loolu waaw waaw daf ma jot cër quoi waaw. kon euh, seen numéro bi jàpp nga ko. waa sama numéro waaw ah. numéro yi. nga nekk fan ñu ngi ñu ngi si yoo. cité biyaag cité biyaag yi derrière de l'exclusif supermarché exclusif en face espace beauté. maal bi nag maal bi. maal bi tawfeex allah. tawfeex ah waaw macha allah. Ah, rafet na de ak Jalika. Ah? encore oui encore encore Fari. Ah. allah nag moom mu ngi choisir. yéen ci yoon moom mu ngi ci yoon kay macha allah. jaajëf grand merci waay grand merci.